Euh, jàpp nañ ne tey jii actualité bi bi ci gën a gën a gën a tàng c'est lié au fait que du 1 juin au 2 et au 3 on a vécu une situation de catastrophe mm tout le monde durement ressenti mm-hmm. bi loolu jàllee mu am ay tappale ay vrai tappale président ak ñu mu àndal ñu ne dañuy génn dañuy wax xaw ma livre blanc la xaw ma mm-hmm. wax loo xam ne nii fii kenn gëmu ko ñoom en même temps ñu defar seen i vidéo def seen ay présentation bëgg wax naka la demee mm-hmm. les gens ont observé au niveau du Sénégal déjà ñu commencé leen a weddi mm-hmm. des jeunes ont montré que sance ne pas passé comme ñoom ñu ko bëggoon a wone mm-hmm. et je pense que aussi la communauté internationale les radios et les télévisions internationales se sont intervenues pour montrer ne ñoom demewul nu ñu ko waxee woon ça veut que instant boobu dafa mel ni dañoo nekk di toroxal Sénégal di tuutal Sénégal ci loo xam ne moom nañ koo moytu. ak li fi xewoon waaw ndax ñun on est totalement solidaire. Mm-hmm. du frère du camarade du partenaire Ousmane Sonko. Mm-hmm. depuis le bi ñu tegee affaire ñu ne moom la ñu àndal delluwuñ ci ginnaaw te foofu lañu taxawee. Mm-hmm. moo tax aussi on a été très satisfait très content bi ñu génnee mémorandum. Pastef pour wane ne. mbir am na mais mbir mi am nii la tëddee. nii la tëddee avec des éléments factuels. Mm-hmm. donc dans cette actualité dafa ñu jaare foofu mooy euh, Branco son avocat démb. da doon def mm-hmm. euh, conférence de presse. Mm-hmm. à Paris donc euh, sénégalais yu bari fekke ko rafetlu ko. donc mu def benn plainte à travers un livre de cent soixante-dix pages. il a dit que il a accumulé sept cent dix preuves yoo xam ne da koy jox CPI. bon c'est pas nous l'aspect CPI mais c'est juste l'aspect qui montre que le Sénégal est descendu assez bas. Et nous on pas besoin de ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin que le négrier le fasse à notre place mais ñun tamit Sénégal on n'avait pas du tout besoin de ça. on avait besoin de pouvoir se parler de pouvoir se comprendre et de mm-hmm. vivre comme on a toujours vécu mm-hmm. dans la paix dans la dignité et s'il y a qu'on puisse s'asseoir, se parler, surtout. Mm-hmm. oui, dans le cadre du respect, ouais, se parler, ouais. Mm-hmm. d'apporter des solutions, parce qu'on a les ressources mm-hmm. pour apporter des solutions internes.